barakaatu mbokk yi ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yal na ñu defal jàmm yal na yàlla nangul ñu koor yal yàlla nangul ñu jaamu yàlla yiñ ciy def yépp koor geeg naafile yeeg jàng alquran yeeg sarax yépp yal na ko yàlla nangu noo ngi fàttali mbokk jullit yi fàttali suñu bopp ci ni ko imaam di waxee toujours te mooy ñu gën a wante xel ci wàllu dimbalante bi <coughs> euh, alhamdulillah euh, xam ngeen ne weer wi ñuy woor ñu ngi koy jeexalee incha allahu ci xeetu ndimbalante boo xam ne bu nose la boo xam ne lislaam moo ko nos loolu rek am njàngale moo xam ne dinañu gën a dimbale ci xam ne lislaam euh, diiney dimbalante la dañu bëgg a fàttali rekk ci cadre boobu xam la ne ñun sunu diina muy diina lislaam diina la joo xam ne teel na bàyyi xel bu baax nit ñi néew doole ñu jàppale leen soo ñu delloo ci alquran ci saar yi nga xam ne ñoo jëkk a ci Makka nga xam ne booba jullit ñi ay benn benn lañu néew doole lool waaye ne ci ay jafe-jafe amuñ benn état boo xam ne moo leen di aar amuñ benn cadre politique boo xam ne moo leen moo leen ëmb sax ci jamono jooju nga xam ne jullit ñi ay benn benn lañu ne ci jafe-jafe yooyu ci la alquran commencé wàcc nga xam ne booba man ngaa wax ne julli sax amagul woor sax amagul dem màkk sax amagul ci la yàlla wàccee alquran ci aay yu bari di wax a benn benn jullit yooyu di leen wax ne lu ñu am nañ ci bàyyi xel seen mbokk dimbali leen ñii jàngale alquran dañooy wax ne alquran saar bi ci njëkk wàcc muy iqra loolu ñu bari xam nañ weneen saar bi ci topp wax nañ ne mooy yaa ayyuhal muzammil beneen saar ba ci topp mooy yaa ayyuhal mudassir kon loolu yaayul mudassir teel naa wàcc ndax mooy ñetteelu saar wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mag ci saar woowu ci lañu borom bi subhaanahu wa taala ne jullit ñi danañ dugg aljana toog ci biir aljana di bànneexu ci xéewal yàlla defal ci biir aljana bay laajante ñoomu neen wala di laajante ak seen mbok yiñ xamoon ci àdduna te gisuñ leen ci biir aljana ñuy laaj ñooñu anañu ñu wan leen leen ñu ni ñoom ñu ngi safara yàlla ñuy nettali mu ne jullit ñi dañoo laaj ñooñu yéen lan moo leen dugal safara maa salakakum fi saqar lan moo leen dugal safara qaalu lam naku min al musallin walam naku nutimul miskin ñu ne ñun li ñu dugal safara mooy daanuñu julli ñaareel ba ñun daanuñu dañ daan lekk bàyyi suñu mbokk yi néew doole dañu daan lekk bàyyi suñu mbokk yi néew doole ma ne loolu alxuraan teel na ko wax jullit ñi ne bokk na ci tax nit dem safara mu teel lañ ko wax ci ñetteelu saar wi wàcc yonent bi sallam ci la yàllay wax loolu ma ne boobu asaka amul julli amul woor amul añ màkk amul mais teel yàlla xamal jullit ñi fi ñu tolloogum ci lislaam ne bokk na ci tax ëllëg nit mën a dem safara mooy ngay lekk bàyyi sa mbokk mu néew doole kon lislaam teel naa bàyyi xel dimbalante teel naa bàyyi xel ñu ñu bàyyi xel ñu néew doole am na beneen saar boo xam ne ci jamono yooyu rek la wàcc muy suuratul kalam muy nuun wal qalam yàlla netteel ci jullit ñi ci jamono boobu xamal leen ne am na ñu fi mësoon jaar ci aw xeet am ci góor goo xam ne daa amoon tool bu yaatu bari garab di meñ góor gi baax lool su ko daan bu demaan daan góob tool bi walla mu koy dagg dafay yëgal miskiin yépp bés bi mu koy dagg ndax ñu ñëw mu jox leen li nga xam ne moom leen war a jox ñu dem benn jamono góor gi génn àdduna doom yi doon na tool bi ba ñu doon ne tool bi ñoom ñu waxante ñoomu neen ne ñi seen bàyyi daan def duñ ko def ñoom ñoom bu ñuy góobi tool bi kenn du ko yëg ndax ñoom parewuñoo jox kenn ku bokkul ci tool bi nga ciy am ab cër la seen bàyyi daan jox daal ñi néew doole ñoom ñu ne dootuñu ko joxe borom bi subhaanahu wa taala teel naa nettalil noonu jullit ñi ci sootul xalami ca makka inna balawnaahum kama balawna ashaabal janna id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastahnuun yàlla ne fa taafa alayhim taifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassari yàlla na yéen a jooju am bëggoon dem lakkat góob tool ba jëriñoo ko te duñ ci jox ñi seen bàyyi daan jox dimbale leen ci yàlla mu ne bañ jógee ji dem dañoo mujj sax defe ne yegguñ ci tool bi yàlla dafa yebal am ngelaw lu ñëw ci guddi ga ànd ak safara lakk tool bi ma ne loolu yàlla teel na ko wax jullit ñi ca Makka xamal leen ne ñii li tax yàlla yàq seen alal mooy dañoo naroon a lekk bàyyi seen mbokk yi néew doole ma ne bi yàllaay wax loolu jullit ñi booba lu bari amagul ci lislaam kon lislaam mën ngaa wax ne li ci jiitu li ci jiitu ci jullit bi war koo xam war koo yëg mooy xam ne lu mu am moog ñi néew doole ñoo ko bokk ma ne bi ma léegi xam nga euh, da ñu bay lañu wax ne lii war a jëkk jàng lii lañ war a jëkk jàng julli lii lay war a jëkk jàng mais dama ne aay yii bi muy wàcc yàlla di wax julli ñi nañu bàyyi xel li ñu am dimbale ñu new doole booba julli amul wooru amul dem màkk amul kon loolu mat na bàyyi xel am na weneen saar saar wu gàtt la yàlla teen la cee wax ba mooy wax ne ndax xam ngeen benn waay boo xam ne man yàlla jàppe naa ko ku gëmut yàlla ndax xam ngeen kooku ci biir nit ñi nit ñi ne teg yàlla na xaay leen ma waxal leen ko araayta alladi yukathibu bi diin fa dalika lu ci yàlla teg yadul yatim wala yauddu ala taamil miskin ba yàlla wane nit kooku nga xam ne yàllaa wax ne du jullit yàlla ba mu koy wanee ci saaru gàtt woowu daf ne mooy koo xam ne day sonnal jirim day not jirim day néewal doole jirim te lu mu am moom kenn koy lekk du ci ci sëdd ay mbokkam yu néew doole loolu maanaam li ñu am li ñu am ci ay saar yoo xam ne ci alquran yàlla daf ñu ko wax ca makka laa wax ca makka pour nit ñi na nañu bàyyi xel ñi néew doole pour ñu dimbale leen booba zakaat amagul nu ñuy génnee asaka nii amagul boobu amagul alxuraan daka daan tudd ci ay baat yoo xam ne lii da koy tuddee ay baat yoo xam ne léeg-léeg mu tuddee ko itaamul miskin léeg-léeg mu tuddee ko al infaq léeg-léeg mu tuddee ko adaawu xaqi saa'il wal mahrum ay tur yu bari la ko alxuraan daan tuddee ca màkka mooy lu am na ci bàyyi xel ay mbokkam ay tur yu bari la ko doon wutal pour nit ñi bàyyi xel loolu loolu moo tax ba mu demee ba Médine ba lislaam demee ba Médine la mu doon santaane ca Makka te wutalut ko nu war a tollu léegi yàlla dafa mujj farataal nag léegi lu waay am bu matee nii yàlla ne di nga ci génnee li jox ko ñii muy zakkaat loolu ca Médine la ko yàlla defee koor ga ñu jëkk woor ca Médine ba koor gay jeex borom bi subhaanahu sant leen ñu woor sunnaal ci ñoom ñu korite ci julli ko mu nekk feet ci ñoom ca feet ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la sunnaal ne feet gii duñ ko julli rek tasaaroo mais ku ne xam na lan mooy feet feet mooy nit ñi jéem a soppi lañ daan togg mu gën a neex jéem a sol lu gën a rafet lañ daan sol nit ñi kontaan bégal njaboot gi yonent bi sallallahu alayhi ne lii mooy feet lii nag buñ ci yegsee mu ne mbokk jullit ñi ñu bàyyi xel ne jullit ñi bu ñu toogoon di feetu nga berndeel sa njaboot berndeel say benn berndeel say soxna sansi sa kër soppi say palaa sol yére yu bees waaye yaa ngi den dak benn bokk boo xam ne yàlla xam ne ne amul sax lu mu sol doomam amul lu mu lekk ci bés boobu yonent bi sallallahu nee na loolu su boobaa jullit bi soo amee yëg mbokkam mi dund ci loolu moom dana xam ne new ci fen nee na soppi mbubam mi ak toggu neex yi dootu ko yëg bu dee jullit la ndax coono bee mbokk miy def yonent bi ne kon nag nu ñuy def mooy bés boobu jotee jullit bu ne na génnee moo tax zakat bii ñuy wax si mooy ab abdaan boobu dépendre ci alal ji sax nu mu toll mais dañ ne kenn ku ne nañ ko ko génne sa njaboot gi kenn ku ne da ko génneel da ko génneel dara joxeel ko loolu ñu jox ko nit ñi nga xam ne dañoo néew doole ndax su bés ba bés boobu jotee ñu mën a ànd ak ñun ci fekk ndax xam ngeen ne euh, lislaam dafa yittiwoo feet googu lool te bëgg itam bu jotee euh, ñépp bànneexoo ndoor ñépp yëgandoor fekk bu bañ a nekk benn feet boo xam ne ñii ñoo koy yëg ñii duñ ko yëg loolu moo tax yonent bi alayhi salaam da daan wax ne nañu nañu nañu nañu nañu génnee asaka mudum koor buñ ko teelee génne ba mu ëpp ndax man naa tax borom jëriñoo ko bés bési feet bi bu ñëwee du am dara waaye nañ ko yéex a génnee jox ko borom ba bésu feet bi bu ñëwee moom itam mu bànneexu bégal njabootam comme tout le monde comme ñëpp. yonent bi ay saa saam daan na wax ne bés boobu bëggumaa gis ku yalwaan yonent bi dana wax lu daa wax ne bés boobu ci feet googu bëggumaa gis ku yalwaan ah, lu tax waa ji daa amul yonent bi ne même bu dee daa ñàkk dajale leen ngeen jox ko luy tax du yalwaan bés boobu ndax ci feet lañu ñu nekk unuum an ni soal yow man a it yonent bi ne nit ñi ñëw doole nangeen leen dimbale ñu am lu ñu jàpp ci bés boobu ndax feet la bu kenn welwaan loolu la yonent sa am alayhi wasallam doon wax moo tax asaka asaka asakay alal nga xam ne day at day dem at ba at bokkul ak asakay mudum koor asaka bee moom ñàkk lay xeex moom ñàkk maanaam réglé ñàkk ba ba ñàkk jógee koo fi xeex ak ñàkk moom la bëgg a def mais asaka mbudum koor du ñàkk ko xeex ñàkk moo ko tax a jóg moom moom feet gi la bëgg ñu régler ko bés boobu ba ñëpp yëg ci yëg feet gi parce que as-su'aalu zullun la yonent bi wax nee na laaj dafa métti nee as-su'aalu zullun walaw ayna tariiq nee na même bu fekkoon da ngaa fekk benn waay di ko laaj sax ana yoon wi rek yoonu yoonu place sangam lay nee na soo ko koy laaj sax di nga suufeel sa bopp parce que yaa koy laaj mu ne laaj daa mitti ak suufe la. te wax dëgg yàlla defe naa ne jullit ñi suñu góorloo ci loolu am yëg-yëg yooyu gën a defaru defe naa ne bés boobu mën nañ koo mën nañoo jox ñu bari ñu amul lu ñu lu ñu dimbali ko mën na leen jox loo xam ne ñoom itam ñu yëg ne feet gee tax ñu jox leen ko ba bés boobu bu jotee ku ne am loo jàpp te doo yalwaan Cheikh Mouhamed Abdouhu fay wax ci téeréem ci tafsiram di wax ne boo jàngee suratul fajri wal fajri wala yaalin ashr nee na boo jàngee wala taxaadduuna ala taamil miskin nee na boo jàngee taxaadduuna parce que am ñu jàng taxudduuna am ñu jàng taxaadduuna ci riwaaya Hafs nee na boo jàngee taxaadduuna mu ne da xam ne baat bi ci boppam loolu mufaala la maanaam deflante la maanaam ñun ñu ñëpp ñu ñaaxante ci jàppale miskin yi nee na waxul yow nga dem rek génnee dimbale miskin bi mais tahaaduna la wax ñu deflante ko ñu dimb ñu ñaaxante ku ne ñaax sa morom te loolu mu ne loolu mooy ku nekk dem ci sa morom ñu dajale li ñu am ñun ñëpp dajale ko organiser ko fexe génne ko jox ko ñi ko moom te duñ fi ne di tilimal seen bopp duñ fi nekk di laaj nit ñi di suufeel seen bopp loolu la lislaam bëggoon parce que nit itam boo gisee yàlla du ñu wax ne la tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha yàlla mu ne seen sarax yi bu leen ko yàq yàq ko bil manni ci ñax borom bu taxuloon ak man wala adha wala fu fu waaju romb ñu ne ko diw moo la jox mbubb mu rafet mi nga diw de nee jox na la mbubb maanaam waa yow li nga ko defal ci teraanga moom mu génn di ko wax moo gën a rafet yow nga di ko wax kon ñi nga xam ne ñoom lañuy jox ñu suturaal leen duñ leen suufeel looy itam daa bokk ci joxe gi te loolu mu ngi daan am ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne sahaaba yi dañ daan ñëw rek joxe jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu dajale li ngay joxe yëpp ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy taxaw séddale ku boppam ku nekk jël sa wàll dem ñi loolu jullit ñi loolu lañ mos di def loolu lañu ñu mos di def mais dañoo dem ba mujj gi loxo buy tàllal ñu teg ci loxo ñu teg mbir mi ci loxo mu séddale ko loxo boobu moom mujj amatul léegi loolu moo waral imaam Cheikh Mouhamad Abdou wax ne aaye boobu soo ko déggee wala tahaadu ala taamil miskin yàlla di yedd ñi nga xam ne du ñaaxante ci joxe génne ñëw miskin mu ne loolu daf ñuy xamal ne ñëw miskin dañ ko war a génnee mais dañ ko war a organiser ci anam goo xam ne ñun ñëpp ñooy dimbalante nga xam ne sa def gi dana ma tax a def ñu dajale la ñuy def yëpp man koo jox ñi ko moom te duñ leen te duñ leen te duñ leen tuutal kon mbokk jullit ñi ci loolu ci joxe asaka mudum koor ni mu amee solo yonent bi sallallahu alayhi wax ne asaka mudum koor day tax koor dafa am koor gu ndaw gee koor gu mag gi koor gu mag gi mooy xiif ak mar ak sëy loolu mooy koor gu mag gi moom boo ci yàqee benn rek ñàkk nga koor waaye koor gu ndaw gi mooy sa làmmiñ yu woor sa bët bi woor sa tànk bi woor bari na ñu man koor gu mag gi te koor gu ndaw gi jekk wowuñ ko noonu maanaam li nga man ci doo lekk doo naan doo sëy du ne loolu nga man ci doo wax loo war ta wax yonent bi salaay salaam wax ne su ngeen demee ba koor gi jeex seen rëcc-rëcc yooyu ngeen amoon ci seen làmmiñ ak seen bët su ngeen génnee asaka mbudum koor yàlla baal na leen ko xanaa loolu rek jaroon na génnee asaka mbudum koor ndax fi mu ne nii yaakaar naa ne bariwut ku jàpp ne ci koor gi góor góorgóorlu lekkaloo loo sëyuloo waaye ni nga sàmmee yooyu est-ce noonu nga sàmmee sa làmmiñ est que noonu nga sàmmee sa bët te yonent bi saa sama wax na ne ko koo xam ne man Euh, sàmm yooyum man naa yegg ci sax jarul muy bàyyi lekk mu ba beneen bunt ne koor gu ndaw googu li nga ci télé yépp soo joxee asasam wudum koor yàlla yàlla yàlla jéggal la ko loolu jar na fóotu waaye nee na itam asaka mudum koor ndimbal la loo xam ne dañ koy jox suñ mbokk jullit ñi mu nekk loo xam ne da leen di taaral ci bés bi ñu bokk ak ñoom fet gi ñu itam suñ feet rafet ndax su ma amee te sama mbokk amul bu dee jullit laa am naa yëg-yëg wax dëgg yàlla aw ma su may feetu sama kër surtout ndakaaru ni ñu bindoo nga xam ne benn kër gi ay kër lay doon benn kër gi ay kër ay famille ñu ci dëkk famille bii yàlla ma ne leen gan lool famille bii yàlla te loolu yàllaa koy def rek yàllaa ko bëggee noonu rek yàlla ku mu jox ñaari reer am kenn ku mu def sa wet te jox ko benn reer yow lay xool rek ba xam di nga reer ñaari reeram de il faut nga yëg ni amoo ñaari reer benn reer nga am ma ne yàlla ku mu jox ñaari reer beneen waaye bu den nag moom bu den nag yow mu mu jox ko benn mu jox joxut ko reer yow mi mu jox ñaari reer yi yow lay xool looy def rek waaye joxuloo ñaari reer benn reer nga am joxeel benn bi loolu la yàlla yow lay xool parce que moom mooy séddale. moo tax du du du même bu lay wax joxal ba mbaa ji du nangu sax ne jox ko sa alal ji def naa def naa leen wa aatuhum mimma illaahi allazi ataakum joxal leen ma nit ñi joxal leen ma nit ñi ci sama alal ji nga xam ne yéen yéen laa ko jox kon fokk ñu yëg am yëg yooyu sunu biir dimbalante ba incha allahu jumaa ji dafa bëgg taxaw benn taxawaay boo xam ne faw ñu wax ko mbokk julli yëpp xamal leen ne lislaam moo ñu ko sant d'abord waaye daal réer ba nit ñi tey di ko defal seen bopp kippar benn benn jumaa ji gis na ne dafa bëgg taxaw taxawaay boobu mooy dañu bëgg fii ñu dajale fi asaka mbudum koor yi kuy génne asaka mbudum koor te man koo nga indi ko fii di nga ko fekk ñu koy jox insha allahu ñiñ ko war a jox danañ leen wax bés biñ leen koy séddale ñu ñëw fii ñu jox leen ko kenn ku nekk ñibbi sa kër bu bés bi jotee kenn lu taxawaalu fii di laaj dara ndax yonent bi alayhi salaatu salaam daf ñu sant ñaari mbir daf ñu sant ñu dimbale nit ñi ba fet gi baax rafet mais daf ñu sant itam ne bu ñu wër di laaj ci bés bi kon bu ñu bëggee dimbale ñii wër di laaj ba bu ñu laaj lañ leen teel a jox liñ leen di jox ba bés ba jotee ñu mën a def ñu ñun loolu moo tax jumaa ji insha allahu li commencé tey asaka mënum koor mën nañ koo génnee gannaaw yow ki nga koy jox duun moom da koy lekk da koy denc di ko dajale mën nga koo teel a génne ndax dafay jëm ci loxob ki nga xam ne moom da koy dajale kon tey incha allahu képp koo xam ne bëgg ngaa génne asaka mburum koor boo ñëwee ci jumaa ji di nga fekk ñoo xam ne ñoom danañ ko jël danañ ko dajale te itam incha allahu bu jamono biñ koy joxee jotee danañ ko wax ñu ngi ko war a jox yëgal leen ko ñu ñëw jox leen ko lu ñu man ñu jàppale ñooñu incha allahu ba bu bés baa ñun ñëpp ñu ànd julli si fekk suñu njaboot yaa ngi kontaan fekk ñun ñëpp ñu ngi ànd ci mbégte am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla defal ñu tawfiq jàppale ñu allahuma salli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman assalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah yaa rabbanaa laka alhamdu kamaa yanbagii li jalaali wajhika wa li aziimi sun'ika subhaanaka allaahumma laa uhsii thanaan alayka anta kamaa athnayta alaa nafsik wa ashhadu an laa ilaaha illa allaah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa xaliiluhu xayru nabiyyin arsalahu arsalahu llahu ila alalami kulli bashira wa nadira allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi din ayuha almuslimun usikum wa nafsi mudhniba bitaqwa llahi taala wa taala amma baad faya ibad allah inna mima anama bihi alkhaliq ala hadihi al umma laylatan wasafaha allahu azza wa jalla bi annaha mubaraka li kasrati xayriha li kasrati xayriha wa barakatiha wa fadliha innaha laylatul qadr azimatul qadri wa laha azamu sharaf wa awfal ajr mbokk jullit yi gannaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala julli ci yonentam bi suñu sang bi Muhammad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 li ci nekk ci ay ngëneel gudd la gu mag gu am dayoo gudd la gu tedd gudd gu neex a amee tiyaaba la yàlla yàlla tombalee moom te yàlla nañ yàlla xiir ci def ci lu baax sa suñ ko ci defee yàlla ko dal unzila alquran fii laylati fii tilka layla alquran ji ñuy jàng nga xam ne mooy suñu tous tour ci moom lañu war a xamee lu ñuy nekkee jullit alxuraan jooju ci guddi jii la wàccoon muy guddi laylatul qadr borom bi tabaaraka wa taala mi wax ci suuratul qadr inna anzalnaahu fi laylatil qadr wa maa adraaka maa laylatul qadr yàlla ne man maa wàccee alxuraan ci laylatul qadr ak a neexoon nga xam lan mooy laylatul qadr mu wax feneen sooratu duxaan aaya ñetteel inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin boor feneen man maa ko wàccee ci gudd gu barkeel kon guddaal laylatul qadar gudd gu barkeel la gudd gu ama am solo la guddi la boo xam ne ci la alquran wàccoon ci la alquran wàccoon hadihi layla ayuha al ixwa hiya fii shahri ramadan al mubarak lay set fi xëy léegi nag guddi gi ci biir weer koor la guddi gu barkeel googu guddi gu am solo googu guddi gu bëri tiyaabu googu ci biir weeru koor yàlla moo ko wax sóortu baqara aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom shahru ramadan alladi unzila fihi alquran yàlla nee weeru koor soo bëggee xam lan mooy weeru koor mooy weer wi alquran wàccoon kon alquran ci weeru koor la wàcc guddi laylatul qadr kon ci biir weeru koor la nekk waqad summiyat laylatun waqad summiyat laylatu bi hada al ismi li anna allaha taala yuqaddiru fiha al arzaqa wal ajala wa xawadisa al aalami kulliha fa yaktubu fiha al axyaa wal amwaal wal naajihuuna wal haalikuun wal suadaa wal ashqiyaa wal xaaj wal daaj wal aziiz wal zaliil wal jamb wal qaxt wa kullu maa araadahu llahu taala fi tilka sana guddi gii di guddi laylatul qadr mooy guddi gi yàlla di programme lii xew ci at bi yépp mooy guddi gi yàlla di programme lii xew ci at bi yépp ñi ci dund ñi ciy juddoo ñi ciy faatu ñi ciy mucc ci coono yeeg feebar yeeg musiba ñi muy dal ñi ciy tedd ak ñiy texeeti ñiy defar ñiy dikk ñi tedd ak ñu torox naataange at yu naat yi at yu bekkoor yi loolu yëpp ci guddi lay la xatar la ko suñu programme programme mooy programme programme programmation boo xam ne programmation bu bu bu annuel la am na programmation générale boo xam ne ba ko ba ba ba ko suñu borom di def bindagul àdduna bi wax nañ ne lu war a mat juróom fukki junni ak ak juróom la ko borom bi def lu jiitu muy bind àdduna kon am na programme programmation générale waaye am na programmation boo xam ne dafay am par secteur di am par at di am par at nag ci laylatul qadr lay amee kon laylatul qadr guddi gu am am solo la yàllaa ko wax ci alquran fiha yufraqu kullu amrin hakim nee na gi laay organisé laay programmé programme soo duxa aaya genn wa huwa al taqdiru sanawi wa taqdiru al xaas fa huwa mutaqaddimun ala xalqi samawati wal ardi bi programme boobu mooy programme annuel programme bu mag bi ko borom di programme mat na cinquante mille ans mu jiitu muy bind asamaan haada wa qad nawaha allahu bi sha'niha wa azhara azamataha fa qaala jalla wa ala wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayrun min alfi shahr kon laylatul qadr guddi gu gu rëy la gu màgg la borom bi joxañ na ko joxe na ci attiré na ci attention ngir ñu xam ne guddi ba mu ne wa maa adraaka maa laylatul qadr aka neexoon nga xam dayoo laylatul qadr ngeen xam dayoo laylatul qadr li ngeen ci gën a mën a xam te mu gën cee tuuti mooy laylatul qadr yi xayrun min alfi shahr mooy guddi la koo xam ne loo ci def mi ngi mel ni loo defoon ci junni ak junni weer guddi la koo xam ne loo ci def. mi ngi mel ni loo defoon ci junniy weer su ko yàlla nangu su ko yàlla nangu yàlla ko fa man tuqbila minha fiha saarat ibadatuhu tilka tafattaftul aadatan alfa shahr kon képp ku jaamu yàlla ci guddi googu te yàlla nangu ko def nga jaamu yàlla junniy weer junniy weer nag dana nekk quatre-vingt-trois euh, juróom-ñett fukki ak juróom ak ñett ak ñeenti weer fa hada sawaabun kabir loolu nag kenn xamul tiyaaba yi mu ndax juróom-ñeent juróom fukki at ak ñett ji koy dund léegi sax bareetul kon ku ko ku yàlla may guddi koo xam ne soo ca jaamu yàlla mu ngi mel ku jaamu yàlla ci juróom-ñett fukki at ak ñett guddi koo kenn war koo jaaxal kenn ku ne war na def lépp li man ba dayeeg moom lambatu ko rek day ci ñëw ci kanam Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu ci xadis boo xam ne imaam Buxaari bind na ko imaam Muslim bind ko nee na yonent bi nee na man qaama laylatal qadri imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi yonent bi nee na ku xam bésu laylatul qadr nga dundal ko nga dundal ko te yàlla rek tax ak wut tiyaabo yàlla jéggal na la sa bàkkaar yi yépp yàlla yàlla jéggal suñu bàkkaar aqulu qawli hada wa astagfirullah alhamdulillah alhamdulillah wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qasimi muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin ayyuha almuslimun wa qad ixtalafa alulama fi tahdidi tilka fi tahdidi laylati alqadr wa dalika ala akthar min arbaina qawlan dakaraha alxaafis ibnu xajar fi fathil baari jafe-jafe bi nag fi mu nekk mooy ban guddi gan guddi mooy guddi laylatul qadr gan guddi mooy guddi laylatul qadr borom xam-xam yi wuute nañ ba àgg ci ñeent fukki wuute kon du gudd gu neex xam du gudd gu neex xam waaye wa saxiix fi hada annaha awtaarul ushri awaaxir fi ramadan wax yooyu yëpp boo ko càmbaree la ca li mu wax mooy mi ngi ci fukki fan yi bu ñuy ko li ci gën a wér wax ne laylatul qadr mi ngi ci fukki fan yi mujj yi ci weeru koor ليلة 21 23 25 27 29 ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom ñaar ñaar fukki fan ak juróom ñett kon ñeenti guddi yooyu ñooy guddi yi laylatu xadar mooy ñooy guddi yi laylatu xadar mën a nekk ñeenti guddi yooyu ñooy guddi yi laylatu xadar mën a nekk te loolu soxna Aïcha radiallahu taala anha moo ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yujalis fi l-ashri l-awaaxiri min ramadan wa yaqul iltabisu laylata al-qadri fi l-witri min al-ashri l-awaaxiri min ramadan axrajahu Buxaari wa Muslim xadis bi soxna Aïcha nettali imaam Buxaari bind na ko imaam Muslim bind na ko ne xadis bu wér la soxna si nee na yonent bi da daan gën a takk diggam góorgóorlu ci fukki fan yi mujj ci weeru koor mu ne yonent bi yamu ci loolu da cay teg ne na ngeen gëstu laylatul qadri ci bis yu tool yi ci fukki fan yi bis yu tool yi ci fukki fan yi mooy ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak ñaar fukki ah ñaar ñaar fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom ñaar ñaar fukki fan ak juróom ñett wa mata daafa al insaan aw ajiza aw takaasala falyataharra fi awtaari sabi bawaakir fi awtaar as-subu' al-bawaakir laylatul xams wal ishriin was-sab'a wal ishriin wat-tis'a wal ishriin kamaa fi hadiisi Abdullah ibn Amr ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam qaala iltabisuuha fi al-ashr al-awaakhir fa in da'ufa ahadukum aw ajiza fala yuxlabanna ala sab'il bawaaqi imaam muslim bind ko imaam buxaari bind ko dan ci yàlla Muhammad sallallahu ne na ko gëstu ci bis yu tool yi ci fukki fan yu mujj yi su ngeen sawaru wala ngeen am ngant bu bu leen bisu tool juróom-ñaari mu jigéen dafa am bisu tool fukk yi am bisu tool juróom-ñaari fan yi semaine bi mujj ci koor yant bi nee na bu bu la bu ngeen ko bu ngeen amul cawarte war ko ci bisu toolu fukki bu leen bisu toolu juróom-ñaar juróom-ñaari juróom-ñaari fan yi mujj rëcc mooy in kamso fi lashri fa in dafa ahadukum aw ajis fala yuxlabanna ala suwar alwar kon semaine bu mujj moom mu lu nit sàggan sàggan bis yu tool yi na ko na ko ci wër na ko ci wër eh, yàlla yàlla dajale moom yàlla nañ yàlla dajale moom am na ay wax riwaay yu bëri ci ñëw indi wax ci discours bi ci ñaar fukki fan bi ak juróom ñaar waaye am solo daal mooy fukki fan moom bëriwul fukki fan fukki fan bëriwul te mooy alwettu minal naari kon fukki fan yi mujj ci koor gi ci góorgóorlu nañ ci góorgóorlu ci bis yëpp suñ ko mënee suñ ko mënut ñu bis jël bis yu tool yi dana jafe nag bon alhamdulilah rabbil alamin dama bëggoon a wax dana jafe ci ñun ñu xam ban bis la parce que bokkuñu bis yu ñu woor waaye yàlla ci yërmandeem baaxam kenn ku bis bi nga jàpp ne ci la bokk ci la lay bàyyi daaw heureusement parce que surtout loolu ñenn da koy xam ñi ci des ñàkk mais borom bi tabaaraka wa taala ci yërmaleem kenn ku ne bis bi nga jàpp ne ci la ci lu ci lañ um, bis boobu mooy sa bis um te lu mu digg ci yiw ci ci ci bis yooyu mooy amee voilà kon ki ki jàpp ne tey moom ki jiitu benn fan lay def xar leen jiitu na benn fan te bu wuute am te bu dajee moom moom la ki jàpp ne. te suba lañ waroon um kooku laylatul xadar mooy mujj ki ko jiitu benn bis mais bis boobu mooy bis laylatul xadar te bu ko ci wute amul loolu ci yërmande borom bi tabaraka wa taala lañ e am parce que yonent bi aleyhi salaatu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax xaalis boo xam ne dafa bis bi ngeen woor mooy seen bisu koor bis bi ngeen woor yi mooy seen bisu waaw bis bi ngeen tabaski mooy seen bisu tabaski au delà góorgóorlu bi ba xam ban bis la bisay bisu kumte au de góorgóorlu gi te dafa war par xam ban bis la ñu war a waxee bu ne tey mooy bisu koor bis boobu mooy bisu koor est-ce que ah alhamdulilah rabbil alamin kon da ko coono coono jaratu ko ñun ñëpp koy ko ñëppay am koor ñun ñëppay dajeeg lay lu kat incha allah ñun ñëppay dem àjjana ñun ñëpp xaj kon fi may jeexal xutba bi mooy fi mbokk yi jiitaloon léegi. te mooy benn expérience bu ñu bëgg a jéem ren ay mbokk jullit ñoo ko jéem ci dëkk bële ci Thiès ay jàkka réussir ko ñu ñaanoon ñu ne dañ koo bëgg a tuxal Dakar ñaan ma ne na dañoo bëgg njëkkee ko sa jàkk muy muy privilège parce que fii lañ bëgg nit te mooy ñu ñu fexee organiser mburu bi jullit yi lu bëri ci lii leen l'islam defar duñ ko jëriñoo rek war a jëriñoo ndax manque d'organisation informe informel baaxul informel day day yàq effort day day neenal effort day neenal peine forme lépp lu dafay tax nga valoriser peine jëriñoo kon organisation lu baax la te muurum koor xikma bi mooy bisu korite kenn bañ a tubarak moorum koor li tax ñu teg ko jullit yi mu nekk sunna mu àggale li tax am sax ñuy wax ne boo ko deful sa koor dañ koy aj li tax loolu benn su si jomb la ci yàlla Muhammad am yàlla xam yeneen mais bi ci gën a fës mooy bisu korite bi benn jullit bañ a tubaab benn jullit bañ a bañ a bañ a yëg ne bokkul ci ñuy feetu ne ñëpp feetu moo tax buggul ante buggul ko ci yàlla moo tax dañu war a def lépp ba kenn du ci yalwaan te loolu ñu ngi koy tàmbalee ci fexe ba dox seen diggante li liñ doon yalwaan c'est-à-dire jot ci liñ doon yalwaan ci bisu korte bi balaa bisu korte bi loolu mooy solution ñu jot ci li li taxoon ñuy yalwaan bi ñu jot ci balaa bisu bi ba ñu yalwaan moo tax ñuy ñaan képp ko xam ne ci jàkk ji ngay jullee wala sax jullee woo ci tàkk wala nga ci tàkk te am yéene génne muur koor soo ko mënee nga indi ko fii jàkk yi balay koor gi doo xaar ba bisu koor gi da koy jënd ñetti fan minimum avant koor gi parce que li ñuy bañ ci yéex a gaaw a yóbbu muuru koor mooy borom jëriñoo ko balaa gi te koor gee tax ñu toog waaye su nee dañ koy dajale ci béréb dañ koy dajale ci béréb bañ ne suba la koor gi dañ toog kon béréb boobu heure bu mu fa demee baax kon fu mu neexoon sax gannaaw su ma koy indi sax sama mën ko li may ñaan daal mooy balay ba bu koor gi desee ñetti fan nañu indi ñun ñu am yéene indi si muur koor te maa ngi ñaan ñëpp def loolu ñëpp ñu essayé nañ indi seen muur koor buñ nee suba la war a jot ñi fi doon yàlla ñëpp ñu koy leen jox leen su ko dee bu war a jotee ñu feetu comme ñëpp ndax loolu la yàlla moo ko doon yàlla ci yàlla jàppale ñëpp yàlla nañ ko yàlla yombalal. ndax teraanga la romb jàkk yëpp ñëw ba Dakar tànn ci jàkk loolu euh, lu jara bàyyi xel la te tax war naa tax ñu gën a góorgóorlu ba seen yaakaar yi allahumma yaa man yow mi bind nit tabax ko tabax bu rafet bii wal lisaana wal kiraam yow mi bind lammiñ may ko mu mën a wax waaw am na lammiñ te mu dox yaa man laa yaxiibu man daa laa yuxayyib man daa yàlla yow mi nga xam ne ku la ñaan nga may ko doo doo ko doo doo tas yaakaaram hab hab li kullin minnaa maa rakaa kenn ku nekk ci ñun li mu soxla kenn ku nekk ci ñun li yitteem yàlla ko fajal wa ballighu min min ad-daarayni munaa yàlla kenn ku nekk ci ñun yàlla ko may li mu bëgg ci àdduna ak àllaaxira te mooy taraangee àdduna ak àllaaxira allahumma ighfir lana jami'a zallan yàlla jéggal ñu ci mboolem rëcc rëcc yi wastur alayna kulla alxatiaati yàlla yàlla ñu jéggal suñu bakkaar yi wa saamihna yowma suaali bu yowma alxiyaame ba ñuy laaj jéggal wal munaqashaat wanfaana wa jamia almuslimin bima anzaltahu min alkitaabi ya arhama rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam qumu ila salaati ما يلمس يا رب سلم وسلم